fii Wally du fi tëgg day gars yi ñi ngi sànni ndey lépp Wally du fi tëgg bu fiy jaar ñi mbokk yi dal leen jàmm ci 313 digital Wally Ballago Seck kenn umpalewul ne samdi bi ñu génn doon le 3 juin moom la waroon a tëgg concert boobule foofule ca Dôme de Paris ca réewum France gannaaw bi ay manifestation amee ba ñu boom ci ay doomi Sénégal moom mile di farama ren bi reporté woon boobule concert ndax ne woon na ne mënut tëggu tëgg te ay doomi Sénégal de concert boobu nag tey ji di la juin moom lañ ko waroon a amal foofule ca Dôme de Paris wala moom lañu ko war a amal foofule ca Dôme de Paris waaye ci image yi ngeen di gis ay doomu Sénégal yu nekk foofule ca France ñoo dem foofule di yëkkati barrière ya fa nekk la ñuy wax mooy Wally Ballago Seck waru faa tëggu concert ndax am na ay doomu Sénégal yoo xam ne danoo dee te moom Wally balaago Seck yeeyu ci yàbbiwu ci waxul benn message boo xamante ne mastawu la jëm ci askanu Sénégal looloo waral ñoom ñu taxaw ne bile concert du fa amee Wally Ballago Seck ak ay staffam ban décision la ñu jël foofule ca doom de Paris dinañu leen ko yeggee xool ba xam ndax boobule concert dina antu nege ni tey daal ñu xam le ne Wally go Seck war na tëgg foofule concert ci doom de Paris gannaaw ba ma ko poussé euh, une semaine tey le 10 la ko war a def kon dinañu xool ndax concert boobu dina mujj am